jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu jóge nañ ci poose bi ñu nekkoon war mat na ñetti fan vendredi samedi et dimanche pause bi jeex na séminariste yi dellusi nañu xale yi ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen ànd ak cawarte goo xam ne gii yéem na ñi nga xam ne ñoo nekk ci saal bi benn benn magit ñi ngi may wax ne mbaa séen nga ma ci saal bi mbaa may ngeen ma ma ñëw ah kay bi du ndaw ñi dong nga koy jariñoo ndax waxoon nañ ca bañ koy tàmbali am pénc mag ña nañ fa am njariñ gone ya am fa njariñ fiirloo naa leen li tax ñu naan mag mën naa ba cim réew walla mag mën naa ba cib dëkk kon dellusi nañu ci sunu séminaire bi seen nañ fi it ñoo xam ne ci wàllu politik la waaye sunu réew mi aadaa tax boo tuddee rek la yàlla xam doy na sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daana wax ne réew mi ku xamula aada yi fi nekk aada yi ñooy xëy massacre la waaw ku xamula aada yi fi nekk waaw waaw moo tax rek waaye ñu seen ci saal bi ñépp bu ñu leen limoon duñu fi jóg waxtu wi dana jeex ñu tafaat ci weneen waxtu mu jeex te du tax ñi ñëw ci saal bi jeex kon nag ñoom ñépp ñu leen di jaajëfal seen nañu leen waaw seen nañu leen tabarkalla ñi ngi ci saal bi <laughs> alaa kulli xaal olin góor waaw seen nañ fi sànq Modou Diagne Fada e, xamu nu mu toogee waaye seen nañ ko ci saal bi sànq waaw ñu di ko indi <laughs> waaw ndaw ñëpp daal tubaarkàlla politiciens yeeg nit yi diine yi ndax li fekk ñaar ñu bokkuñu jataay lu baree bari mën naa des ci changement yi nu bëgg mooy politiciens yi ak sëriñ si sallallahu alayhi wa sallam daf noo bàyyi woon benn xadis mu ne ñaar ngi nii sama xeet bi bu ñu baaxee xeet bi baax bu ñu baaxut xeet bi munta baax sinfaani min ummati waaw isa salahu salaha naasu wa naasu waaw mu ne sama xeet bi am na ci ñaar bu nu baaxee xeet bi baax bu nu baaxut xeet bi du mën a baax bi ko saaba yi ne ñoo ñan mu ne al umarau wal fuqahaaw moo jax al umaraa u politiciens yi wal fuqahaaw ak sëriñ si ma tax bu sëriñ si ak politiciens yi bokkee defar tolloo onde ak fréquence penc mi jag waaye bu fekkee ne fréquence yi dañoo tolloowut wala tubaab bi fexe ba ñoom ñaar mënuñoo jaaroob taal lu kee wax kee weddi ko lu kee teg kee teggi ko su boobaat duñu dem su boobaat duñu dem li ci daara ji pénc mi soxla na ko li ci école bi pénc mi soxla na ko bu pénc mi jotee ci li ci daara ji jot li ci école bi dem ndax bu fekkee ab oto la benn lumière bi féete gauche école bi la lumière bi féete droit daara ji la oto bii demee benn lumière nag bokkut bii demee ñaari lumière waaw loolu lu am solo la ci pénc mi ala kulli xaal pause bi jeex na seminarist yi agsiwaat nañu ak cawarte euh, jox naa leen euh, seen saag yi jox naa leen ay bic waaw jox leen ay bloc note waaw <laughs> ay bloc note bloc note yeeg yëpp ñu ngi ci bind séminaire bu Sud FM seen rajo waaw lañ ci bind ci kaw waaw waaye Omar Gueye dugal na ci loxoom ba tabarkàlla <laughs> kenn mësu ko gis rek waaw ma nuyoon teg ñoom kon maa ngi leen di nuyu yéen séminaristes yi eh, tey sunu tomb bu maag ñoom ak yéen ñi déglu ak mag ñi ñu rax ak mag ñi ñu rax mi ngi jëm ci menn njaxas moo xam ne walla ay maladie yoo xam ne bu fajuwul ci ndaw ñi duñu dem mat na juróom-ñett yoo xam ne mën nga ne ak dégg ci tànku ndaw ñi waaw walla doo daan la ci yoonu ndaw ñi walla walla walla walla yooyu kon fañ foog ñu waajal leen pour def yi ne ci seen kanam ñu mën koo dindi ndeysaan réew mi am jàmm ngeen am jàmm nu am jàmm ba déwén ak jàmm <laughs> ndeysaan Sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum kon loolu nga xam ni moo nekk pakk yi ne ci kanam ndaw ñi les défis contemporain def yooyu jaadu nañu waajal ndaw ñi ba yokk leen kàttan yokk leen énergie yokk leen personnalité waaw yokk leenu njàmbaar njàmbaar bañ mën a def li nga xam ne moom la ñëpp séentu ci ñoom loolu moo tax ay ndaw bu ñu nekkee jim réew ku ci def ak njàmbaar war nañ lay yëgal ne def nga njàmbaar ku ci def ak yaafuus ñu soññ la ku def naka su dul noona nag nit ñëpp xam ne kii leen def du noonu waaw yooyu lu am am solo la ndax xale tey xale yi tey am na lu leen dal loo xam ne mën naa yéexal seenum dox bu ñu dee dox mën naa yéexal seenum dem bu ñu dee dem mën naa yéexal seen waaxu bu ñu dee waaxu moo xam ña ca politique ba ci ñoom moo xam ña ca diine jële ci ñoom sunu pénc ñooy wax nitu diine yeeg nitu aada yi yooyu mën naa gàllankoor ndaw ñi ba boo muytuwul dem bi du yomb ñu bëgg a fil doo daan yooyu parce que route nationale yeyoo wulli doo daan te ndaw ñi route bi ñu nekk route nationale la waaw yéen ndaw ñi camarades madame et monsieur sinon mademoiselle ci te te xam naa te ngeen sonn <clears throat> dafa am juróom-ñetti yëf yoo xam ne dañ cee bëgg a waxtaan maag ndaw ñi ci séminaire bi noo ngi centre Abdou Diouf nit ñaa ngi ñu fi fekk ba léegi kaar yaa ngi ñëw ndax communication bi tabarkàlla ala kulli xaal sëñ Mbàkke léegi nangu naa ñëw toog sama wet ndax dama nekkoon kaay toog fi mu ne ma baabu fii ma toog jàkkaarloo yow waaye léegi nangu naa ñëw toog sama wet merci suñ Mbàkke warul di ma sori waaw waaw waroo di ma sori <laughs> ndax mu ngi noonu rek dégg waaw yëngal na bopp bi nee na waaw dafa am benn feebar bu ne ci xale yi ci lañ war a njëkke suñu jataay tey mooy almithaaliya althalbiya galabatu almithaaliya al ala alxarakiya mithaala thalbiya wala mithaala salbiya mooy ay ay exemple négatif je pense que bu doon wax ci tubaab lu laa koy wax ay exemple négatif yoo xam ne mi ngi ci pénc mi yooyu day gàllankoor ndaw ba pour du def action exemplaire négatif yooyu nga xam ne moom la ndaw ñi def daf leen di tee mën a def action luy loolu mooy ndaw ñoo xam ne exemple yi mooy Omar ibn Khattab kenn mënu ko waaw mooy Seydina Aliou ca njàmbar ga exemple yi mooy kan mooy Abu Hurayrata exemple yi mooy waaw Serigne Fallou maam Serigne Fallou exemple yi mooy Sëriñ Saaliw exemple yi mooy Sëriñ Babacar Si exemple yu am solo la waaye ndaw ñi ñoo koy def ci côté boo xam ne dafay négatif mooy lan yow moomu nan yow moomu nan Omar nu Xataab yow yaay kan lu lay coow li yow moomu naan Omar nu Xataab yow yaay kan yow miy wax sunu mag ñi yow yaay kan ndax pare nga pour dabi mag mi ndax pare nga pour def ni ñoom mag mu ci nekk soo ko dee seetlu bu baax mbokk yi est-ce que départ bi mu depaar seetlu ngeen ko allahu akbar bi maam Sëriñ Tuubaa di feeñ fi mu feeñ ba def fi li mu fi def te àgg fi mu àgg ndeysaan allahu akbar fi mu fekkoon daara ak ñooñ daara fi mu fekkoon sëriñ ak ñooñ sëriñ fi mu fekkoon ba ak kajoor ak yu ni demee waaw yow nag waaw yow nag moom Cheikh El Hadj Malick waaw fi mu fekkoon daara ak ñooñ daara waaw mu fekkoon daara ñooñ daara loolooy dox ba suñ jonni tey ji ma bëgg yéen ndaw ñi nekk ci saal bi ngeen jël bind boobu mooy li nga naan ndaw mag mi nangam xoolal sa bopp yow ban programme nga am ëllëg ba mel ni ndaw loo mag moomu wala ba jaar aw yoonam sunu borom nee na ku jéem a jël la yóbbu ca mag ña waaw alxaqna bihim durriyatahum bi imaan mooy mën ngaa bañ mel na mel tëbe nam tëbe waaxoo nam waaxoo waaye sunu boroom nee na ku dog yoon wa rek may la agsi nga léegi nag ndaw yi ndax yéen ndaw ñi ci saal bi pare ngeen pour pour nu jéem a def sunu bopp ñooña la waaje waxoon ku bëgg doon Omar ibn Khattab da ngay moom ndaw yi dafa am kenn ca jamono yi sallallahu alayhi dafa dem ca àll ba beru fa moom képp lu muy def mu ne nee day jaamu yàlla waaw ala rasi jabalin foofa la nekk def fa mbaaram walla nàngamam moo xam gaañe fekk ko fa ne ko kaay wuyu yonent bi <laughs> mi ngi ci moom dong gaa yi fekk ko fa ne mu sallallahu alayhi mu topp ci ñoom ñu indi ko ne ko mi ngi nii yonent bi xool ko waa am nay jumtukaay ndax am na xam-xam ko defal formation ci pédagogie mujjee waa ji yonent xool ko ne la sabru ahadikum saa fi mawtinin min mawatinil jihad xayrun lahu min ibadati ahadikum aama ñëwal ci biir pénc mi ñu lay tegi benke ñenke ngay muñ ñu lay xasaka di la defi commentaire ngay muñ ñu lay wax ak soppi say tur ngay muñ waaw ñu lay mbëkk ka ba max ngay muñ mu ne ko loolu benn une de temps bi nga ci am moo gën soixante ans ah bon mu ne ko maa la ko wax sa benn une de temps ci biir penc mi di changer penc mi ko soppi ñu lay xasaka ba ma xëkk dóor moo gën sa 60 ans yi ngay def ah xale yi na ngeen dégg loolu <laughs> la sabru ahadikum saa fi mawtinin min mawatini l jihad xayrun min ibadati ahadikum sittina aama sa Cheikh Tandian waaw benn une heure bi ngay am ci biir nit ñi ñu lay bamax di la xeeb di la xas di defi commentaire ci yow waaw léeg-léeg sax saaga peut-être mu ne ko une heure de temps boobu moo gën soixante ans yee waaw yéen mathématiciens yi seet leen ko une heure de temps bii moo gën soixante ans yee kon ndaw ñi loolu benn joxoñ la mooy kon nekk sa ruq rek nekk sa ruq rek déedéet ñëwal ci nit ñi ñëwal ci nit ñi waaw dugal ci seen biir waaw allahu akbar wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam fu ñu ko mas a tànnaloo diggante ñaar mu tànn la ci di gën a digg doomu su fekkee amul contradiction ak sharia lim tëral waaw waxaat na it ne al qalilu daaim xayrun min al kathir al munqati aw kama qaala di def tuuti te mu tëx a dakk moo gën yuréet këng waaw <laughs> toq toq moo gën yu réet këng waaw toq toq ci dëxa takk dëxa dakk waaw tey suma directeur Baye Omar ne woon danaa la may chaque jour cinq mille professeur Jimmy ne danaa la may million ku ku amul xalaat day defee ne million bi gën cinq mille bi waaye sin mille bu tëx a dakk <laughs> cinq mille bu tëx dakk boo ci amee at bët bu set cinq mille foo jëm loolu na ci na ci nañ ci xalaat yéen ndaw ñi toog ci salle bi te fekkee seminaire bi discours boobu nañ ci xalaat alxuraan nee na ca suuratu nisaa aaya cent quatorze sëñ Mbàkke laa xayra fii kathirin min najwaahum laa xayra fii kathirin min najwaahum sunu borom ne na beru gi beru gi ci roq yi li ko ci neex bariwul mu ne génn leen roq yi ñëw ci pénc mi te defar ko laa xayra fi kathirin min najwaahum beru gi ci roq yi li ko ci neex bariwul ku ne nekk ci sa roq di ngun nguni ñëw leen ci pénc mi <laughs> seet caay waajal waaw laa xayra fi kathirin min najwaahum ni ci roq yi rek ngun ngun ngun rek waaw soo ngun ngunee ba génn tabarkàlla mu ngi noonu rek waaw ceet tet tet xale yi ñu ne naa baamtu naa baamtu laay ji may leen laa xayra fii kathirin min najwaahum waaw sunu borom nee na ngun-ngun gi ci roq yi li ko ci neex bariwul ñett rek ko ci neex illaa man amara bi sadaqa boobu neex na ko luy loolu mooy ngun-ngunu ci roq bi pour digal nit mu génneb sarax mu ne boobu neex na ko maanaam am na koo xam ne boroom boroom alal la am na dara li nga koy wax ba mu génneeb sarax waaw bëgguma sori ci yooyu waaye Beldam Couture Fatimor dal na yàlla yokk ko wér tomb bii su ma ko junjee rek sama xel dem ci moom naa yem foofu junj doy na ko am xel waaw wax lépp xam lépp nag wax lépp mag ñi da koo aaye waaw <laughs> ak suñu yaay daara ji ñuy tuddee soxna Marème fay waaw naayam foofu liste la nag waaye daal duma wax jëf yi damay wax rek ne nit amara bi sadaqa sunu borom ne loolu neex na ko nga jege kenn ne ko ah boo defoon nangam mu baax wala diw mi jar naa jàppale wala diw mi jàkk ji jar naa def nangam wala kër gi nangam walla walla walla feebar bi nangam wa loolu ngay digle nga déy ko jenn waay ci noppam dana soxna bu Sekk mu ne naam nga ne ko jërëjëf diw mi nangam nangam muy la ah nga ne ko waaw mu dem nga dem nga yëg ne def na loola Adja bu Sekk <laughs> wax sa xalaat waaw tabarkàlla merci le benn nangoo yàlla nee na boobu neex na ko aw maaruuf nee na beneen déy bi ci roq yi di ngun ngun bi ko ci neex mooy kuy digle maaruuf luy maaruuf mooy njëkk luy njëkk mooy loo xam ne ki koy def du ko làq du nëbbutu te buñ koy nettali du sëgg looloy maaruuf ñaar mu ne ñaar yu neex na ko aw islaax mu bayna naas walla defar digg defarub diggante maanaam ne ci roq bi di ngun nguni pour defarub diggante mu ne ah, suñu borom ne boobu ci yi ma saf la bokk waaye ñett yi dong nga ma saf nag ngun-ngun jën a dakk <laughs> dalay wax sëñ Mbàkke na ko fi ne suñu suñu suñu assemblée nationale fi nekk nii ngun-ngun la ci ruq ndax li ñuy làkk li ko dégg ci réew mi daa bëriwul xëy na seex xane léegi sax tane na ndax ay député nga yoo xam ne ñeme nañoo wax mbokk yi nangeen def ñeme nañoo sol xaftaan ñeme nañoo kaalaw ñeme nañoo sol mbaxana waaye bu njëkk laay moom dañu defoon ne député moom tubaab bi rek mbaa nga jóg fa waaye léegi tabarkalla ala kulli xaal tànne na ci wàllu googu waaye nag nekk ci roq bi rek ngun ngun ngun ngun ngun ngun wate lawet wate nañ waa sàngam ngun ngun ngun ngun ngun ngun wate nañ waa sàngam te loi sàngam yooyu léeg-léeg ñu wate ko waa pénc mi duñ ci xam dara dara dara mbàkke ma netti ci la netti la wàlle ko séminariste yi nga xam ne ñoo toog sama kanam waa ji dafa nekk mbàkke ñëw ci miir bi tekki tubayam tuuru fa ndox waaw alkaati ba fa taxaw jàpp ko ne ko yow da ngaa mënta jàng waa ji ne ko am ah, mën naa jàng kay waaw alkaati bi defe ne mënta jàng parce que mënta jàng tubaab waa ji moom mën naa jàng ndax mën naa jàng alxuraan waaw mu ne ko liir liñ fi bind <laughs> waaja bàyyi fa mbind maag yëpp ne ko saa faal am na oto mu ne ko nga ne mu ne ko dañ fiy bind saa faal faal am na oto waaw saafal ab commerçant la woon bu nekkoon Mbàkke ndeysaan te te te te hmm? policier bi ne ko binduñu fi loolu mu ne ko lu ñu fi bind mu ne ko dañuy tere ko fi saw mu ne ko ah bandi li ma bind liir ko ak li nga liir ndekete ñoom ñaar kee daa jóge ca daara ja kee jóge ci ecole ba waaw mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot séminariste yi laa xayra fii kathir min najwaahum yàlla nee na ngun-ngun gi ci pénc mi ci ruq yi li ko ci neex bariwul illa lu dul ñett yi man amara bi sadaqa aw maaruf aw islaahin bayna naas wa man yafaal dalika ku def benn ci ñett yi mbaa ñaar ci ñett yi mbaa yëpp amara bi sadaqa amara bi maaruf def na benn ñett yi mbaa ñaar ci ñett yi mbaa ñett yëpp ku ko def ibtixaa mardatillah te bëgg ngërëmul yàlla moo ci ca yóbbu hmm. fa sawfa nutiihi ajran azima yàlla mu ne kooku danañu ko jox pay gu rëy pay gu kon mbokk yi feebar boobu moom la doon waxtaane tey maag yéen séminariste yi ban lan mooy feebar bi mooy galabatul mithaliya as alal xarakiya ku ne xam na ni exemple yi baax na waaye léeg-léeg ñu defe ko nu négatif mooy di joxe exemple ci nit ci politicien ci kilifa te bëgg mel ni moom waaw maanaam pare woo pour mel ni moom waaw maître waat di ci pénc mi yàlla na ko yàlla yokk wér exemple la ci ah ci penc meeg démocrate yeeg ñoom seen yooyu ak bëri ba àgg ci yëf exemple la ci waaye jàmm a dundee sànn allahu akbar exemple la ci ñoom mas mu jóob ñoom ah jàmbaar yooyu lu tax du jël exemple yooyu jël ko ci côté bu positif mooy fas yéenee doon ñooñu bi ñooñu doonee liñ doon ba noppi nun tam ñu jéem a doon dara waaw loolu rek lay tekki jërë ngeen jëf ci ànd bi Sud FM seen rajo benn tomb nga noonu boo xam ne moo doon tey sunu tomb mag séminariste yi Eh, tabaarakallah xam naa bu ñu dellusee ñu ñëw ci beneen tomb bi nga xam ne moo ci tege ci juróom ñetti yëf yoo xam ne war nañ ci jéem a faj ndaw ñi bu leen neexee ci kanam joti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 ci seen jotaay bi am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca def ci suñuy poste dara yanaan daloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaah ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu